awsu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb borom tuba mbokki jullit yi mbokki taalibé yi ginnaaw bi ñuy ñaanalee cheikh mahamadul muntaxa ibnu chahrul bachir mu yàgg fi loolu te ànd akuk wér noonu lañ koy ñaanalee baax a baax maam cheikh ibrahima fall sëriñ am di moodu mbenda waaye di ko ñaanal mbooleem njabootuk borom tuba gépp ak mbooleem njabootuk cheikh borom tuba yi waaye di ñaanal bu baax a baax jàmbaari sëriñ tuba ji seydina amsatu mbakke moom sëriñ chouaïbou bu ngeen gisee fii nu taxaw nag ngeen xam ne ñoo ngi ci liggéey bi nga xam ne sëriñ muntaxa sant na ko kii nga xam ne mooy sëriñ amsatu mbakke moom sëriñ chouaïbou muy bisub xasida bi nga xam ne war nañ koo amal fii nga xam ne mooy ci jumaa ji ci bisub altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2022 bi nga xam ne ci la ñu nekk xam ngeen ne nag Serigne Amsatou Mbacké ku ñàkk sagalo lool ci jot ndigal ci kilifaam waaye rawatina Cheikh Mahamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mahamadul Bachir waaye rawatina li nga xam ne moo di ak pàccam te mu def ci yitteem yëpp ci liggéeyal ci borom Tuba mu ci xasida yi booba ba léegi nag xam ngeen ne Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou mi gi fépp ci njiital Serigne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ni nga xam ne noonu la ànd ak mbooleem mbokk taalibe gis ngeen fii ñu toll nag tey jii ci àllarba gi ginnaaw bi nga xamee ne julli nañ timis ba léegi la mbokk taalibe yi nag daal di nekk ci li nga xam ne mooy liggéeyu sëriñ bi mooy fas yéene nag taaral ngir sëriñ Muntaxa am li nga xam ne moom la bëgg ci moom nga xam ne booba ba léegi ñi ngi ci baasi di ko taxawal noonu ci liggéey bi nga xam ne mbokk taalibe yi ngi ci di ko yëwénal ngir lépp rek ngir daje ci ak li nga xam ne mooy tawfeexu sëriñ bi ginnaaw bi ñu nekkee ci liggéey bi ab diir bu gàtt ngeen gis soto Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou ñor gi ko liggéey bi ñor waaye ñor gi ko ndigal ñor waaye ñor gi nga xam ne moom la ko xaside Serigne Touba yi ñor gis ngeen mu dagg yi téem ñëw fekk si ci nga xam ne mooy mbokki taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne moom lañ cee amal mooy tàmbali liggéey taxawal li nga xam ne mooy baas yi ngir fii nga xam ne mooy ci penkub jumaa ji ñu fas yéene fee amalee li nga xam ne mooy ndigalal sëriñ bi waaye ci njiital sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou nga xam ne fii la koy amalee moom ngir dundalee fi bi ak mbooleem kuréel yi nga xam ne danañ fi nekk di ci jàng ak mu yenn ci rajaskat yi nga xam ne fas yéene nañoo ànd ak moom wéttali ko waaye mbooleem duruskat yi waaye tamit sëriñ Amsatu Mbàkke di ci soññaat eh, pëstéef gi nga xam ne moom la ciy doxee ngir ñàkk gim ci ñàkk soxo sago te xam na ne mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi safoo xasida yi sago googu la ñu ñàkk ci xasida yi waaye sago googu la ñu ñàkk ci li nga xam ne mooy ndigal bu xasee ju ko rawatina mu jugee ki nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim mu cheikh abdul muntaxa sëriñ amsatu mbàkke tamit di ñaan ñu ñaanalal ko cheikh mahamadul muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ku wér ba am li mu bëgg ndax nee na it bu sëriñ bi amee li mu bëgg rek nun taalibe yi sunu aaju jëpp faj ngir xam ne dinañu amul li nu bëgg loolu nag mooy liggéey baa ngi di fii ñu toll tey ci àllarba gi mbokki taalibe yi nekk ci fas yéene cee fanaan ñoom it jaay seen nelaw jaay seen yitte lépp saxal ko ci fas yéene li sëriñ Amsatu Mbàkke santaane te bëgg ko te mooy tawféexu ko sëriñ bi mooy sëriñ bi am li mu bëgg boobe ba léegi ci loolu la ñu nekk moo tax boobu ba léegi kenn ku ci nekk bàyyi ak jotam bàyyi léppam nekk ci li nga xam ne mooy liggéey bi ni ñu nga xam ne moom lañ koy taaralee booba nëga di waaw koy yi nga xam ne ñoo ngi ñuy ànd ak ñun ñu fas yéene leen a dégtal lépp loo xam ne dina am incha allahu rabbi fii la ñu tollagun tey ci àllarba ci waajtaay wi nga xam ne ci la ñu nekk tey nag ñu fekk si ñi nga xam ne ñooy commission basse bi ñoo ngi ci boobu ba nëga ni di ko liggéeyee ak cawarte waaye di ko liggéey ak expérience boo xam ne moom la leen sëriñ bi jàngal ci loola rek la ñu nekk kon ñu dikkaat ak yéen ci yeneeni jotaay ci yeneeni vidéo incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سف البقاء بي لي فيك يلا بسم الإله اكفل الأكدار يلا سف البقاء بي لي فيك يلا